asalaamaaleykum mbokk yi euh, képp koo xam ne bëgg nga jàppale académie asrar sa numéro baa ngi nii ci kaw 77 666 53 60 والأنبياء والأنثياء من هم قل بالصلاة والسلام أبدا لهم كما زيد من لم يهدى إلى النبي قل الصلاة والسلام والأنبياء waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu di leen siyaare di baaliwaat ak ñaan yàlla bu jéggal ñu nangul ñu koor gi lépp lu ñu ñaan ci réew mi rekk yàlla def ko yàlla tàpp xol yi ñi yóotu réew mi ñi yor réew mi ñëpp defar rek leen tax a jóg kon ñun ñu topp seen ginnaaw dana ànd ak dal waaye kilifa yi ñu góorgóorlu ba teg réew mi ci yoon ñu ñëw ci dars tay bi képp koo xam ne dafa amee méttitu biir méttitu biir képp ku ko amee méttitu biir bindal ko aay bi juróom-ñaari yoon mu naan ko day set ci saasi aay bi dakkitu aaya bi képp ku amee méttitu biir boo ko bindalee jox ko mu naan ko biir bi dana set boo ko jàngee ci ndox ëf ko mu naan ko biir bi dana set képp koo xam ne bii moom képp koo xam ne muslaay seytaane rab jinne ak liggéey da bind aaya bi cent onze wala mille cent onze nga wut reenu kàdd xasum kàdd xab ya nga ciy sangu moo xam cat la moo xam liggéey la moo xam mbiri seytaane jinne la wala yooyu ñuy tooñ ak yooyu yëpp baax na ci lool lool lool baax na ci lool xaatim bi moom da koy bind seize fois bu ko bindee seize fois nga bind yaasin ba ci xaafi loola nga baama ko soixante six fois nga bind aaya sourate vingt six verset soixante huit nga bind ko soixante-neuf bi nga bind ko soixante-dix bi nga bind ko soixante-onze bi nga bind ko sourate 17 verset 31 32 nga bind ko sourate Nuur verset 30 31 24 25 nga bind ko def ko saafara kuy mooy yàlla bu koy jëfandikoo dana bay dana bàyyi mooy yàlla kuy njaaloo jigéen buy njaaloo wala góor guy njaaloo wala muy defi mbir yooyu dana ko baax góor guy fooye boppam bu ko jëfandikoo dana ko baax aay bi ngay bind aay bi sept mille cinquante moo nekk ci biir bu fekkee da nga jàkkaarloog say ay noon bindal xaatim bi yaa xam benn yoon yaa xam juróom-ñaari yoon yaa xam juróomi yoon yaa xam ñeenti yoon nga bind aaya bi mu wër ko yaasin ba ci xaafiloona mu wër aaya bi nga koy sangoo di wër xas bu na laawa nixmal wakil sept mille cinquante wallahi al sa sonoon yooyu dinañ la abal bërëb ba dinañ la may jàmm wala ñu tàggaleen hmm. maa la ko wax boo wér dee xas wala sept sept mille cinquante nga jàng wa jaal naa min bay ni ay dimi saddan wa min xalfihim saddan fa ahshay naam foomu laay suróona nga tëje ko trois cent dinañ jóge bërëb ba danañ la may jàmm wala ñu dégg ne yóbbu nañ ko seen village bërki démb wala démb la faatu yóbbu nañ ko la mayul jàmm ñu tàggaleen waaw bépp saay-saay boo dëkkal bindal xaatim bi sept mille cinquante boo nekk ci biir ñu na laa ma ne mal kii sept doo ko def ñetti fan boo bàyyil waa ji ñu ne yóbbu nañ ko seen village de waaw bu dee nag dang nga ciy kuy njaalookat kuy jigéen ñu am jëkkër di mooy góor gu am jëkkër di mooy wala góor guy foye boppam bindal ko lii bind aaya bi yaasin ba ci xaafiloona 66 bind ay surat 20 surat 26 nga bind ay 68 69 71 70 surat 17 bi 31 verset 31 32 surat nur ba legi 31 32 24 25 ni nga koy bindee nak ni nga toppantee ni nga koy bindee wala ko li yeb ya, dox ko safara mu ci sangu di ci nan dana baye njaalo dana baye fooy boppam moo xam jëkkër juy njaaloo la wala jigéen ju am jëkkër di njaaloo suñu borom tax ba mu dana ko dimbali ba mu ba tey boo amee aajo bëgg ubbiku da ngaa neexee nga def ñaari rakka la neexee mun ngaa a nga laab rek toog wax la te nga wut sabadooru jaamu yàlla mbub mooy jaamoo yàlla ut ko mbub moo xam ne moom du génn néeg bi waaw dañ koy xay def ko niñ ko war a toppatoo ba sobe yi dañ ci ut sa mbaxana ak kol goo xam ne moom ngay jaamoo yàlla bàyyi pantalon yi ak tubéy yi di set yi nga bëgg léeg-léeg di di ñaanee aajo du dem bëri na kuy ñaan demut moom ci boppam moo wala xool boppam ak ndib ya muy sol di ci jaamu yàlla waaw utal perkaal dem ci gaañu jobal la ko benn bolok bu baax xam ne moom ngay jaama yàlla sa xol gi du génn néeg ba tubay dàll di ko laal wala dara nga xam ne da ngay laab di takkoo laab boo nga lewee nga la nga dem defaraat sa bopp sëriñ dafa metti sëriñ dafa metti de sart yi laaj yëpp moom foog nga respecté ko <laughs> waa ji wér dinaa wér dinaa ba bay bëgg a dee est-ce que ni nga war a mel mel nga ko est que fi nga taxaw baax na loolu yëpp si na nga xool say yére balaa ñu koy fóot ak amo bi ñu am nuñ ko def noonu ñu koy xoojee xayu ngeeni wax waaye ñu xayu ko ba mu kii ñu soog a fóot voilà nga ji muy jaamu yàlla voilà boo julleegee ba pare nag wala da nga tëju aajo bu la bett defal istixfar salaatul fatihi nga jàng isaa jaa nasrullaahi wal fathu 1111 isaa jaa nasrullaahi wal fathu isaa jaa nasrullaahi wal fathu isaa jaa nasrullaahi wal fathu 1111 ya fatah ya razaq min sa'uz ngini ya jamu ya jaamu waraita nasa ya waraayta naasa yadxuluuna fi diini waraayta naasa fi dini bu leen di laaxi de waraayta naasa yadxuluuna fi diini waraayta naasa yadxuluuna fi dini ngini ko min sa'uz ya allah ya huwa ya allah ya huwa min sa'uz ga jangatal sambi ya mal hal mahadu ya mal hal mahadu 1001 eh. gende alam nasara 100 fois wallaay asim lu gaaw a gaaw a gaaw gaaw gaaw ci aajo la lu gaaw gaaw bépp aajo boo am wala bett wala da ngaa tëju boo liggéey di nga ubbi ko ndax léeg sëriñ bi sax da koy daal léeg nga toll jëmmi jamono yow daal léppay taxaw léppay taxaw batterie day wàcc léeg-léeg léeg-léeg koy chargé waat te dara du ko dara du ko chargé loolu jaamu yàlla nelaw mu bëri bi du ko chargé léeg nga ne man daan dama tëju dama tëju parce que da nga gëj a wéet da nga gëj nga def ay sifaar gëj nga sikkër yooyu yëpp day waral loolu sa sa mbir yi nekk en arrêt léegi nag booy boo delluwaatee ci sa sajaada génne sarax yi incha allah da ngay gis mbir mu commencé waat dox wala léeg-léeg xaatim sax dana la tëj doo ko xam léeg nga defar xaatim mu tëj la doo ko xam nga jëfandikoo ko yooyu yëpp dafa jar di xool te à force ngay dem ci lasaraan ngay commencé di jàng lettre yu lettre yu leer yi ak lettre yu lewet yu yu tàng yi naar yi ak lettre yu nuur yi mais foog nga lay xool lettre yi araf yi am araf yu leer yi araf yu lëndëm araf yoo xam ne dañuy taxawee naar yi am araf araf yoo xam ne dañuy taxawee trois bi yooyu yëpp il faut nga dem nag nga koy à force nga ne ci milieu bi nga commencé di ci fortaatu ndànk di ci fortaatu ndànk ba mën a commencer ràññee léegi jox la aaya sax nga génnee aay yi nga xamante ne dafa leer araf yi leer yi boo génnee rek yàlla da lay jox dara da lay téye dara waaw ngay téye benn contenu léegi li ngay liggéey dafay gaaw parce que jox nañ la inna haza la risquna ma lahu min par exemple génneel ay araf yu yi ci ne boo génnee rek di nga am benn jumla bu la jox automatiquement da ngay téye dara dama gëstu ko fa neex da ngay dara aay bu teg ko rek nga génnee euh, araf yi euh, lëndëm yi araf yi leer nga génnee ko danga nga am benn contenu bu am doole automatiquement dangay gis sa affaire yi day commencé dox yooyu ba nag à force ngay nekk si milieu bi day commencé di di ràññee parce que xam nga di euh, lettre vingt huit lettres yëpp xam nga ko léegi il faut nga commencé génne lettres yooyu pour nga mën a xam fi ngay taxaw léeg-léeg aay bi sax du jar nga wér ko boo génnee contenu boo ko laalee rek mu dox boo ko laalee rek mu dox te toujours booy fekk wërsëg day ànd ak suuf ndox moom dañuy ànd suuf ak ndox moom loo fa dugal si wërsëg day dem léegi boo leen génnee rek da ngay am benn contenu ñu baamuwaat ko képp ku biiram di metti boo ko bindalee aay bi wala nga jàng ko ëf ci ndox bu ko naanee rek biir bi day metti waaw yasharu maa fi butunihim wal julud yasharu bihi maa fi butunihim wal julud moom ngay bind wala nga jàng ko ci ndox fu mu fekk biir moom fu mu fekk biir moom biir ba ci saasi waaw fu fekk biir moom biir biir ba ca saasi am na beneen bu nekk suratu Huud waaw boobu moom it noonu mais bii moom dafa auto bii moom c'est automatique c'est automatique am na góor ñoo xam ne biir da leen seen feebar la biir seen seen bu bindee rek juróom-ñaari wala nga ëf ko ci ndox onze fois bu ko naanee day wér kii moo xam seytaane moo ko jàpp moo xam liggéey lay dindi moo xam moo xam moom daal aar boppam la bëgg bindal aaya bi cent onze wala mille cent onze bu neexee sax mën nga koy wér di mille cent onze nga wun xasu kàdd reeni kàdd ak xob yi bu dee man nag damay xam période bi xob yi di fi ne ah <laughs> bu dee man nag damay xool période bi fi xob yi fi nekk wala période yi nga xamante ne reen yi mooy foor sa kàddu garab gu garaaw la garaaw garab gu garaaw la boo xamee dëgg too liggéey day dee de wa waaw waaw too liggéey moom day faatu de boo ko boolee xob yi reen yi xas mi daf ko cangat moom lu am doole la walla nga adat sa ismu noon sa noon bi nga adat ismu bi di ko wér de aay bi waaw lu garaaw la moom waaw lu garaaw la bu àndatee sa noon bi ismu bi ismu bi mu la jox nga nga jël ko ak limu aaya bi nga nga teg ci yaa daaru yaa daar nga teg ci ci lim boobu noonu sëñ bi lu doy waar la moom moom moom day alak nit moom bu dee kuy mooy yàlla kuy njaaloo am jëkkër di njaaloo am jëkkër di jabar di njaaloo di fooy sa bopp bindal ay bi bindal khatim bi 16 fois bind yasin ba ci xaafiloola 66 surat 26 nga bind verset 68 69 70 71 surat 17 verset 31 32 surat nur ba legi 31 30 31 24 25 nga def ko safara jox ko muy sangu di ci naan incha allahu rabbi dana bàyyi njaaloo dana bàyyi fooy boppam dañu jàpp ne jigéen rek moo war a dajale ay tànkam góor noonu nga war a dajalee say tànk yow ndaw mi yow may seetaan laay wax dajale sa tànk yi bés a ngi ñëw di nga wéet mere ku la deful dara xam nga lu gën a métti ñu jox la jabar mu xonq cur nga tëjoog moom si néeg mu mel ni kuuru ay ni bu necc nga toog di jooy am na lu ko gën téyel sa tànk yi takk sa tubéy ji du góor rek war a téye tànkam góor rek war a tëj jigéen rek war a tëj tànkam góor da ngay tëj sa tànk sa arwa wi sa awra nga jox ko cër di respecté sa bopp parce que suba da nga yor soxna sama jabar day mooy est-ce que yow jeexoo ci àll bi soo ko takk ni jigéen di téye boppam góor noonu nga war a téye sa bopp takk xale bu xale boo xam ne lu mu mel ku ko gis topp ko te mënoo ci dara ba pare nekk bul génn bul ute bànneex sëñ bi ah, loolu da dangay téye sa bopp de dafay fekk nga téye sa bopp yal na yàlla def barke ci njàngale bi li fu dëng rek ci ñun la waaye li fi baax si góor bi yàlla suñu borom la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf eh, dolli wala boo amee beneen oustaz mën a dem mu dem man pare bu ma defee damaa jàpp. yaa Fattah. Issa Dia Nasrullahi wal Fath. 1111. Istighfar Salatul Fatih. Istighfar Salatul Fatih. téeméer. Issa Dia Nasrullahi wal Fath. Issa Dia Nasrullahi wal Fath. Issa Dia Nasrullahi wal Fath 1111. yow mi tëju laay waxat. yaa Fattaahu yaa Razaaku 1111. ya jami ya muqti mil wara aytana sa yadkhul ona eh, fi dini wara aytana sa yadkhul ona eh, fi dini min sa'os ya huwa ya allah min sa'os ya mal hal mahad ya mal hal mahad ya mal hal min eh. alam nasra temer doko def ñetti fan te guntu bi dajje fuul doko def ñetti fan te guddi guntu bi dajje fuul ah, wa wa wal fatku ngayam wal fatku ngayam ngayam laa ilaha illallah muhammad rasulullah laa ilaha illallah muhammad rasulullah laa ilaha illallah muhammad ni nga koy jàppee ba am neuf bi ah laa ilaha illallah muhammad rasulullah ni nga koy jàppee ba am neuf bi bu dee nga bëgg xaalis yonent bi moo lay jox xaalis dimanche ngay commencé nag laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah mille cent onze nga jël lundi laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah trois deux mille deux cent vingt deux trois mille trois cent vingt trois quatre mille quatre cent quatre cinq nga koy def nii ba neuf mille ba neuf mille dix neuf nga wàcc ci sept mille bi sept cent soixante dix sept bi nga dóor ko teer huit mille bi teer neuf mille bi wallahi asim wut nga jot xaalis yow sëy yaa ngi dégg li ma lay ngay commencé mille cent onze laay ilaaha illallaah muhammadu rasulullah man nag bu ma koy liggéey damay indi salallaahu alayhi wa sallam laay ilaaha illallaah muhammadu rasulullah salallaahu alayhi wa sallam man bu ma koy liggéey noonu laay def mille cent onze cent vingt deux trois mille trois cent trente trois quatre mille quatre cent quarante quatre 6666 7777 8888 9999 xam nga àgg nga 9 nga wàcc ci 7 bi dóor 7777 bi 8888 88 bi boo accès ci 9000 bi boo bàccee boo bàccee boo bàccee rek mu putt bi dajje ko nga jox xaalis bi ngay laaj wallaay yàlla xam na ko yonent bi lay jox xaalis ci boppam ah waaw yonent bi moo lay jox ah. Wow, dimanche nga koy commencé waaw lundi nga Wow, waaw waaw boo wàccaatee dafa mel ni da nga jëli élan boo accès boo wàccaatee set bi di ñëwaat dafa mel ni da nga jëli élan pour force bunt bi xam-xam laa lay wax gis nga ci set bi yow yaa ngi si kër di fëgg benn buntu mu dëgër nga wàcc ci set bi jëlee élan boo accès bunt bi ubbiku parce que du nga xaar fëgg bi parce que boobu yow da nga dama wax seydou legui ma ko nit ki nek ci ci metti di ñaan dafa amé chaleur yalla day def am na yo xamné ne sax duñu ko jangalé mais bo ci lo ñaan yalla mu def parce que instant boobu da nga amé chaleur mo sikkër sikkër ba tang jër mu leer yow da nga tang lo ñaan yalla mu def ko ma mer mer andal ak sa sago lo xulo xulo yaral sa kaddu ndax juwo dina léeg-léeg nga jur nga liggéey man liggéey naa loo xam ne rëccu naa ko ci diggante rëccu naa ko léeg-léeg yow bi daf lay dal nga def benn ñaan ci benn affaire après nga rëcc ko parce que ba nga koy def chaleur bi nga amee la booy xuloo sax yaral sa kàddu parce que da ngay juboo juboo day am suba voilà moo tax loolu yëpp danga koy bàyyi xel mais laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullaah sallallaahu alayhi wa sallam deux mille cinq cent vingt laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam deux mille cinq cent vingt bu dee da ngay dàq da ngay def deux mille bi ngay wàcc deux mille cinq cent vingt lim bu garaaw la deux mille cent vingt lim bu garaaw la bi laaj deux mille cinq cent vingt dafa garaaw loo ko jox moo laaj la ko nag deux mille cinq cent vingt deux mille cinq par neuf loo am 2520 divisé par 9. 2500 divisé par neuf mën nga def istighfar mun nga def salatu fatim mën nga def loola ne deux 280 ah, la la jox tur bu tur yalla bu graw la divisé par 8 divisé par huit deux cent quatre vingt ismu ismu bu garaaw la divisé par huit ah divisé par huit ah divisé par sept deux mille cinq cent vingt divisé par neuf divisé par sept divisé par huit divisé par sept bu 2520. Locaux de 2. Voilà. 1260 fois 2. 2520. 300. 300. Là, là, Hein? 2520. 360, moins là. ah 360 mooy lan mooy kawnu bi soo jëlee Faatiha Ikhlaas Aayatul Kursi yaa ngi am 360 araf da ngay nekk Australie nee ma naa la ñaanal ma def sama jàpp nga wax ma sa tur ak sa turu ndey ma jàng Faatiha Ikhlaas Aayatul Kursi Faatiha Ikhlaas Aayatul Kursi Faatiha Ikhlaas Aayatul Kursi noonu laa koy jàppee de benn damay def benn Faatiha benn Ikhlaas benn Kursi. ma am benn ba mu mot trois cent soixante ma wax yow sa aajo bi bu na jàppoon kaso ñu libéré la waaw ndax lii angal boo dem degré trois cent soixante ngay am moo tax lim bii dafa garaaw mille deux cent soixante huit fois deux loo am mille deux cent soixante fois deux loo am ah loo am nga ne 1263. 2. 2500. 1260 fois 2. 2520 nga xam nga lii mooy lan lii mooy ba indi jundanaa la humul xaalis boon moo la jox 1260. mu jox la ñaari muntakhimu 630 ñu ci biir lim bi 2520 moo tax laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam 2520 loo si ñaan mu def da ngay dàq jëlal 2500 def 20 da ngay xëc jëlal bi jëlal bi jëlal bi yalla xam na ko motax nasara daal ñu noonu daal nañu yàlla defal jàmm yàlla may ñu naan lim bi ku bëgg nekk sëriñ bi nga jël lim bii de deux mille cinq cent vingt yaa xam nag loo siy def mais deux mille vingt moom loo bëgg defal ci waaw lim bu garaaw diviser un ba neuf du tóol boo koy diviser de un jusqu'à neuf du tóol jamais jamais jamais du tóol du tóol yàlla yàlla may ndam Thierno pare nga. Thierno pare nga kon deux mille cinq cent vingt waaw. waaw. moom la mathématicien di wax. nombre premier. nombre premier. maanaam nombre boo waaw waaw waaw moom la ñuy wax nombre premier. moom bu garaaw la. deux mille cinq cent vingt moom deux mille cinq cent voilà deux mille quarante trois lim bu garaaw a ngi nii say jaka si suuf mais ay dox fii ci biir moom day tukkil dëkk. Hmm. moom aay yi dox ci deux mille sept cent quarante trois moom day tukkil dëkk moom tamit day tukkil dëkk day tukkil dëkk kii boo ci huit cent trente deux deux mille sept cent quarante trois mooy huit cent trente deux moyen laa def waaw moyen rek man maa ngi wax moyen 832 2743 moyen 832 gars yi calculé wuñ ñu ah 1911 ah 1911 1911 ah moo ci des 1911 moyen 651 ah mille trois deux cent soixante moo ñëwaat ah mille deux cent soixante bii ñu génne ci deux mille cent vingt moo ñëwaat fii léegi mille deux cent soixante plus huit cent trente deux plus six cent cinquante et ñaata la mille deux cent soixante plus 832 plus 651 ñaata la. 2743. 2743. 1260 mooy wa inda junnanaa lahumul xaaliboon 832 mooy wal xaytu aleyka ma xabatan mini. 641 mooy wala xat amma bihi wa amma biha. koo bëgg mu nopp la mu nopp la par force. Ah. moo tax sëy dafa garaaw. xaatimam du taxawaalu xaatimu nobelam du taxawaalu koo bëgg mu nopp la mu nopp la noo koy liggéeyee damaa bëgg de dama am ko waxal waay moo tax 2743 mu garaaw Seydia moo tax Seydia dafa garaaw moo tax Seydia dafa garaaw nga li muy dajaloo fii wal xayti alayka maqabatan minni moom la yàlla roof Moussa Firawna mën a supporter ah <laughs> man de toog na moom xam naa di ko wér moom aay yi wér naa ko ah. waaye doy na waar ah. waaw mm-hmm. man mi nii ah. waaw yéen gis naa benn Porsche fee suñu wet. wal xaytu alayka ba xabatal min nii. voilà kuy ah. na mën a. wala xamma bihi wa xamma biha mooy 651 cent ah. moom Yuusuf la ak femme ya. dañ ne Yuusuf moo moo décidé wala ndaw si sëy voilà da ngay indi laay laay la laa say jëkk siisul laay laay la laa say jëkk siisul laay laay la laa say jëkk siisul mais man ma ne la yëpp téye naa ko nii mu koy wér 2743 yàlla xam na ko lu lu doy waar man bëri na talsam yu bëri nii damay day jéem génne ay aaya liggéey ko si aaya yi yax bi. muhabbati kon muhabbati mi ni mu ko wér 2740. wa inna jundanaa lahumul xaalibuun wal xaytu alayka mahabbatan minni wala xaaba ahmad bi fii liggéey naa ko. Hmm? waaw. la inda junna naa la xamul xaaliboon waaw waaw gis nga bu nga ba nga defee ba nga defee ba nga defaree ba nga defaree xaatim ba nga defaree xaatim bi ba pare ba nga defaree xaatim bi ba pare léegi defal bii rek xaatim bii rek defal xaatim bi Aaron defaral xaatim bii nii nga def un deux trois léegi nga def deux mille sept cent nga def deux nga def deux mille sept cent quarante trois moins six deux mille sept cent quarante trois moins six li la jox nga dugg fii dugg fii dugg fii léegi xam nga fii am na bëyti xaar léegi nga def taalub ak matlub nga teg ne le nga jël nga jël lim boobu limu deux mille sept cent quarante trois bi ngay mooy neuf dina am lu des deux mille sept cent quarante trois mooy neuf li mu la jox nga defaat mooy neuf ngay wàcc rek gis nga dina des ñetti koñ yi dina am buñ ci des léegi fii day tàng fii mooy naar yu turaab yu dina moo xam di nga xam xaatim bi ndax fuy tooy nga koy dem wala khatim bu fi tang nga koy def ngay fi kër la ilaha illallah si jëkk si sun yaangi fi yak yàgg matlub bi hmm? daf lay bëgg de lay bëgg waaw man dama ko dama ko liggey si dama ko liggey ay 3 heures la ko liggey ba julli 5 heures ba paré di doxantu ba melni damay miir ma ne ah waajaa ngi mi ngi def liggéey damay dox nii ba mu yàgg rek ma mel ni damay miir ma ëttu ma wéeru nii taxaw tuuti xam naa ne fa ma def affaire bi non mu ngi yëngu gars dem nañ kenn du yàlla kenn du yàlla mooy yàlla waaye gis nga lim yi nii dafa am solo lim yi dafa am solo lim yi dafa am solo lim dafa am solo lim yi dafa am solo lim yi dafa am solo yow mu mun nga mun nga bind sa aajo calculer ko dagg ko xaaju mun nga bind sa aajo dagg ko xaaju génne ci turu yàlla yi sa ngoo xaatiw di ko wér sa soxla ngay bind soxla rek boo defee allahu jibril nga def allahu jibril allahu muhammad jibril yatlubu minallahi nangam sàngam sa tur sa tërëkër yi dam ci kay kay def ci oh. sa soxla bobu lettre ba nga bind lettre bi nga calculer sa lettre bobu limbi bi mu la jox nga dagg ko khatim tul ko beuy te xal def ci sa soxla def ko fiñ ko wara def diko sango genn ci tour yalla di ko liggéey limi yi lim yi lim yi moo yor affaire limi yi ko yor lim yi lim ko yor lim bi ko yor lim bi ko yor lim bi moo ko yor il faut ngay jël limi ngay liggéey limi aaya buñ la jox nga génnee araf yi leer yi da am dara defal maa wax exemple rek inna haza la risque naa maa lahu min nafaadi lettre yu leer yi nga génnee ko rek nga xool génne ko rek nga xool da ngay am da ngay xam waaw rafu nuuraan yi boo leen génnee rek da ngay am dara ah déedéet 1747 am na ñuy wax 46 am na ñuy wax 47 wàccaat mooy 711 waaw mooy 711 2743 boo demee niche des secrets bi. demee 2743 la. gis nga 2700. demee biir tànn waaw. 2743 dafa garaaw. dafa garaaw. dafa garaaw moom 2520. man dajewuma ak lim yu yu kéemaane nii nii dañ kéemaane ndax ay yi dox ci biir. 2525. 2525. aaroon na. yaa ngi génne archive de waaw daal sëriñ la sëriñ la de sëriñ kaamil la deux mille cinq cent vingt cinq lépp chiffre la lépp lépp chiffre la ci naafi la yeeg lépp naafi la yi ngay defar li ngay wér nag lépp chiffre la tout tout tout lépp chiffre la lépp chiffre la ah Assane Ndiaye wàcc nañ la. wàcc nañ ah, léegi wàcc nañ. waa julli sax dafa jot de ma ne ko julli sax dafa jot.